Non, c'est national. Au niveau de l'État, on a des problèmes pour la sécurité des populations. Le maire n'est pas chargé de la sécurité de la commune. Du tout. Il peut y participer. Mais il n'est pas chargé de la sécurité de la commune. Mais le problème de l'hydraulique au Sénégal, mais c'est national, c'est même international, pour ceux qui savent, ceux qui suivent l'information. Mais pour Sali Aérodrome B, maire investit une équipe 8 millions, pour indi ndox bi investir plus de 3 à 4 millions pour indi courant bi ay soixante quinze mo fi mais n'oublions pas nit ñi bu ni quartier lañuy wax quartier aérodrome quartier sali aérodrome quartier Médine alors que commune Malikunda, 22 villages la ñaar fukki village ak ñaar la on ne parle pas de commune combien de quartiers il y a alors dans Malikunda? Li ben ben ben ben quartier la ñun tamit ben quartier lañu mais maire su défé ay huit millions ci ben quartier deux ou trois millions encore ci ndox ci ci courant bi wala wala ak kii indi case de santé nga xamni ñetti quartier yépp yëpp ñu demati tefes mbour fi lañuy ñëw ci case de santé bi matériel baa ngi nii suñu gannaaw looloo ñu indi tey poste de santé bi looloo ñu indi tey pour ñu waajal bés bés boobu kon kay maire a ngi liggéey benn quartier bo am loolu te ci village nga bokk il faut que les gens soient sérieux aussi ci li ñuy reproché maire bi benn mandat mu def loolu début mandat am ñu naan ko non insécurité mais parlons ana ana jeune quartier bi ñu ngi nii taxaw ce sont ce ne sont pas ces gens là qui vont dire que le maire n'a pas travaillé non ñoom li ñuy wax dañ ni maire li mu def doyul d'accord nañu ni li mu def doyul mais liggéey na mais taxaw naan liggéeyul kooku wax lu neex la defal na gare routière bi fi ci aérodrome la bok de dernière génération pour 1 milliard té maire bi dugalu ci 1 franc 50 yéen journalistes yi ko ak journalistes yi Sénégal yépp ci yoon nañ ko ah mais mais fi transport interurbain bi mais nit da nga daan toog fii ci kii bi di da ngay paas ba dee ñaar téeméer ngay paas léegi boo defee fanweeri dërëm kaar yóbbu la Mbuur yóbbu la Kër Maysa ah lan nga bëggati jigéen ñaa ñi nii taxaw duñ ma bàyyi ma fen réseau jigéen ñi dem na maire jigéen ñi la jàppale ñun góor ñi dañu maire jigéen ñi la jàppale defal leen formation financer leen mais nit ñi nan leen bëggati encore terrain football yi fii Saly aérodrome comme sali Carrefour numéro un quatre classes la maire construit pour nous, pour Sali aérodrome clôturer école mais lan la nit ñi la même chose la ñu defal école la maire m'a construit. man je suis la première personne bu Margaret Sen recevoir le premier mandat il nous a reçu vers une heure du matin man ak délégué de quartier mi ngi sama gannaaw Omar Ba ak popula ak nit yi dëkk suñu quartier sur ñu salle de classe bu ñu commencé mu

ñoom soo boolee seen voix du nekk 5000 voix mais ku dem làmb ja nga dem ring ba ñu door la ba nga bu nga furoo ñi ci suuf soo goree da ni nem wala nga jox ki la daan loxo ni ko yaa man mën. ñëwuñu liggéey ba pare taxaw di jël ay nit yoo xam ne xamuñu sax na lay commune di fonctionner parlons ça ñooy ruube ci suuf ñi ñu daanoon mais mani ku mënul régler sa kër mënoo régler sa quartier amoo jàmm ak sa waa quartier boo nee da ngay jël mairie da ngay sa bopp. ce sont des mécontents des éternels mécontents ñun daal ñii kilifa yaa ngi nii taxaw jigéen ñaa ñi nii taxaw màggat seen a ngi liggéey naam dañ ni li mu liggéey doyul na dolli loxoom parce que noon yaa ngi taxaw siñ ko fang mhm. mais mi ngi def mi ngi def partenariat ak États-Unis yéen journalistes si xam ngeen ci dara mhm. mais màggat seen waa Malicounda bu ñu gore woon rof rek doyna rof la xaw rof rof rof nga xamni 100 ans amul ndox amul lumière Maguette sen yóbbu na fa lampe yóbbu fa lumière mais lolou doyna lolou doyna soy ñi dal dañuy wax nañu continuer di wax rek di wax ba mais danañ wax ba élection mu daanat leen wala mu indi dauphin mu daal leen l'homme des grands projets moy Maguette sen ñun Maguette sen bu den politique mo bu don bu fekkone pour am dara pour suñu poste motax ñu and ak mom kon bàyyi nañ ko yagna na waaye ñun suñu quartier moo ñu ñor suñu gox moo ñu ñor suñuy doom ñoo ñu yor suñuy santé njaboot moo ñu ñor te ki nga xam ne àddina moo koy xëccoo waxuma Sénégal de àddina la monde entier ñooy xëccoo Maguette Sène le maire Maguette Sène le plus jeune maire ah le maire des grands travaux ñun kooku la ñu waxal waxuñu ak mbojo mbojo yi waxuñu ak mbojo mbojo yi ñun duñu waxantu ñun ay kilifa lañu ñu dañu màgget seen may ñu terrain dañu jënd suñuy terrain dëkk tabax dëkk dañ ko jàppale te yàlla tax jàppale ko ndax dëggoom dak jàppale ko ndax nangoo liggéeyam jàppale ko ndax nangoo jàppale jigéen nag paawan ñëw na ci léegi jigéen ñi sama ginnaaw xool leen ay maire yoo xam ne ñii ay gerte lañuy jaay ñii ay fonde la ñuy jaay ñii ay nangam la ñuy jaay mais fuñ ne màgget seen fu ma leen ne acca leen ñu ne acca parce que xam nañu kan mooy màgget seen du waxantu jigéen ñu jàmbaar yi ñoo nekk nii maa ngi leen fekk ci seen bool seen seen i kàddu ñuy saaf gerte ba ma leen ne monsieur le maire Maguette Sène moo woote suñu poste de santé bi dañoo jog ñëw topp si ma ndax lan ndax jomam ak fulam ak faydam ak gëm jigéen fonk jigéen ma ne coow li coow wax na ko dañ leen door dóor dóoraat leen te fas yéene leen a dóoraat élection mooy ñëwaat moo tax ñuy wax ñun xam nga lan la ñuy xëccu Maguette Sène fu koor jote man ci suukaru koor yi mi ngi ci tàndarmay koor yi mi ci mi ci euh, soble si mi ngi ci pombiteer bi mi ngi ci xaru tabaski yaa ngi ñëw te ku ne di nga gis mu gàddu buumam waaye ku mën na nga def ku mën na nga noddu dama ne jàkka jaa ngi ñii nañu noddu. dafa am ñoo xam ne dañoo génn démb ne la maire Maguette seen deful dara fii nii ku ko wax daa wax lu la neex rek mais ku xam meer xam ay réalisation man damay wax si wàllum jeunesse bi ñun ay jeune lañ ba ñuy dëkk fii nii àllum foy foy la woon. Mhm. terrain yi dara amu fi woon mais la maire.

maire tey jii nii jeunes yi nekk fii nii genn wàll yëpp ñu ngi liggéey waaw ñenn ñu ngi liggéey COUD ñenn ñu ngi liggéey DMTA ñenn ñu ngi liggéey si maire bi ñenn ñu ngi liggéey fii nii si euh, hôtel bu bees bi lan moo tax jeunes yi liggéey si hôtel bu bees maire ba mu xam ne hôtel bi daa war a ubbi dafa jël jeunes yi formé leen ne leen kaa leen ma yóbbu leen ngeen def formation ñu dem ñu jël ay diplôme d'état bañ pare ñu yóbbu leen si tey jii si hôtel réunion bi jeunes yëpp fay liggéey kon tey jii képp ku taxaw fii ne la maire liggéeyul lay nax xam nga dafa am loo xam ne ñun ñii acte trois de la décentralisation dafa am loo xam ne domaine compétence maire la am loo xam ne bokkul ci domaine de compétence maire le maire il n'est pas là pour construire des routes le maire il n'est pas là pour construire des collèges loolu af la fa wax xam ne conseil départemental moo koy def tali bi xam nga lan lañ mën a wax ñu ñaan maire maire waxal le président de la république président réaliser ñu tali bi mais maire am na latéri gi maire maire tey fii nii am na dégg naa ñu naan espace peut-être ñom ñoo sàmmul sen espace mais fi salim medine sali Aérodrome Carrefour marikunda espace vert yang fi espace yi nga xam ne jeunes yi looloo tax tay ji ñu mëna a fi fii ni poste de santé bu suba ñu samp feneen euh, case des tout petit bu suba ñu sampal feneen parce que dañoo protéger l'espace de verre donc man li mëna wax moy que nañ xam terrain bi du yomb ñun jeunes yi taxaw nañ ku laal meer ñu laal ku ko mbax ñu rimbax la ko élection législative ku ñu ko rimbax ñu rimbax la ko